dellu si waat nañ ci émission bu am solo bi nga xam ne yéen a ko tàmmul seen bopp mu di émission kaddu daara tey nag ñu ñëw ci dëkk bu am solo bi nga xam ne moom moo di luga ci daara ji nga xam ne moom mooy daara Baye Cheikh Sow fa la ñëw macha allah fas yéene ànd ak yéen ci émission bi nga xam ne moom lañ tuddee kaddu daara ñuy jaajëfal bu baax baax ñi nga xam ne ñu ngi def seen loxo ci daara rawatina ki nga xam ne moom moo di suñu papa euh, Serigne Abdourahim Traoré ak soxna soxnaam soxna Nogay Seck macha allah euh, ñu nekk foofu ci New York macha allah ñu ngi jàppale daara yi bu baax a baax waaye tam ñu ngi sant bu baax a baax Baye Sang moom mi nga xam ne macha allah daara ji nga xam ne moom lañ weesu mu di daara yi Sëbu Xutaan yëg nañ ceeb bu mu fa yóbbu yëg nañ diw ga yëg nañ saabu ba yëg nañ suukar si macha allah euh, di leen ziyaara bu baax a baax waaye itam duñu fàtte suñu yaay soxna Mati ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ak suñu yaay nekk fële ci Allemagne fa la ñuy toppee mu di euh, soxna Xadi Aan ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax jaajëfal soxna Fatima Kébé Sarr nekk ci Italie moom tamit di jàppale daara yi waaye itam soxna Fatima bu Canada ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ñu ngi leen di jaajëfal itam ci jàpp bi nga xam ne yéen a ngi koy jàpp ci daara ji macha allah ba saa yu ñu defee émission rek du ñàkk ku ñu woon nañu jàppale na daara jooju ñu leen ci sant bu baax a baax di sant ko nuyoo ko ziar nag ki nga xam ne moom moo di sëriñ sëriñ Habib euh, Mbacke ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax macha allah moom tamit Mouhamad Al Habib mi ngi jàpp ci daara yi bu baax a baax a baax ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax mu di Mouhamad Al Habib euh, Mbacke mu sëriñ Modou Faat Xari ñu ngi koy jaajëfal mu ngi ñuy seetaane tey ci euh, Maroc kon mbokk yi noonu lañ fas yéene ànd ak yéen ci daara ju am solo ji nga xam ne moom moo di daaray Baye Cheikh Sow xam naa dañuy ànd rek dugg ci biir seeti ba xam lan la ñuy fekk ci biir daara yi xale yi nga xam ne macha allah ñu ngi fii di mokkal alquran di ko jàngee ci biir daara ji ñu ànd ak yéen rek dugg ci biir daara ji xooli ba xam lan lañ fay fekk وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض jërë ngeen jëf mbokk yi macha allah yéen ñi ànd ak ñun ci télévision Mafatihul Bichri comme niñ leen ko waxee rek ñu ngi ci dëkk bii di Louga ci daara ji nga xam ne mooy daaray Ba Cheikh Sow Euh, ci koñ bi nga xam ne moom lañ tuddee montagne nord am na ñu ko gën a xamee itam bayax fa lañ nekk ci daara ju am solo ñu ngi toog ak ki nga xam ne moom moo di sëriñ El Hadj Sow moom it nekk ci daara ji xam naa moom la ñuy am ak jotaay bu am solo bi nga xam ne moom moom moo war a wax tey taarixu daara ji xam naa dañ koy jox rek mu nuyoog mbokk yi nga xam ne ñooy seetaan télévision Mafatihul Bichri alhamdulilah rabil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillah mbokk yi jullit yi mbokk yi ñu ngi leen di nuyu te ñu ngi leen di ndokkeel te di leen leen dalal tey ci daara ji ñu xam daara ba Cheikh Sow di Salaam fii ci Bayax montagne nord. Hmm. Euh, jërëjëf euh, sëriñ El Hadj macha allah ci nuyoo bu am solo boobu nga xam ne moom moo di nuyoo julit mu di asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bi ñu la nuyoo ziar la delloo la bi nga xam ne moom nga nuyu jullit ñi ñu bëgg laa laaj rek balaa ñoo yegsi ci taarixu daara ji kan mooy Baye Cheikh saw Baye Cheikh saw si gàttal maanaam sëriñ Cheikh Sow cosaanam paxa Sow la mu jóge ci maanaam waajur waajuram bu ñuy wax maanaam sëñ Galaay saw ak maamam ju ñuy wax maanaam am Balla Sow nga xam ne bokk na ci fekkoon sëñ bi xomaak ca la bokkoon moom ngeer malal ci lu ñu xam lu ñu wax ne fala la juddoo fa tàmbalee jàngamit waaye nag daf ko mottali maanaam ci wër daara ji ba yàlla jox ko alxuraan ba mu ba mu ba mu jógee daara ja nag booba la tàmbali jàngale alxuraan ba jëm yàlla tey waaw kooku mooy Baye Cheikh Sow ci gàttal. Euh, daara ji nga xam ne moom mooy euh, daaray Baye Cheikh Sow Daaru ndax Baye Sow Cheikh moo ko tàmbali wala dafa ñëw fekk ay maamam ñu ubbi daara mu nekk ca di jàngale. waaw moom lu mu doon la nag ndax ay maamam dañ daa jàngale. maamam baayam yëpp dañ daa jàngale waaw waaye fii nag mu nekk tey jii ci Louga moom moo ko fi sos moo ko fi indi ndax daara ji ngeer la njëkkoon a nekk li may jiit na sunu judd waaye bu njëkk comme ni ñu xamee daara noonu la daa doxee moo dañ daa def bu nawetee ñi nawet bay bu nooree ñu noorwaani di dem ci yeneen gox yi ngir am lu dongay mën a jàpp ak ñi mën a jàng ci loolu la doon def di ko def di ko def ba yàlla def maanaam mu ñëw Louga gii Ah, mujj fi toog ak ay dongam waaw fii nag moom bi mu fi ñëwee léegi maanaam 84 lañ ñëwoon ci béréb bi ba tey waaw 84 lañ ñëwoon fii waaw boobu ba léegi mi ngi fi di jàngale moom ba ba léegi mi mi ngi ci mi ngi ci liggéey bi ba léegi. kon macha allah 84 ba léegi Baye Cheikh saw mi ngi ci daara ji di jàngale alquran mu nekk loo xam ne itam mën naa wax ne at yu diire la yu ñaan yàlla rek yàlla fay ko ci ndax xam naa ne jàngal na ay doomi jullit yoo xam ne tey ñu ngi ci leen yoo xam ne mokkal nañu alquran ñu bëggoon a xam rek 84 ak léegi ndax xam mën ngaa xam ñaata nga ñu mën a xaymaal na fi jaar mokkal alquran. xam naa ci takk dëgg-dëgg moom dana jafe ndax biñ tàmbalee bind loolu dëgg-dëgg yàggul waaye nag li ma bëgg xam li ma xam foofu mooy jamono bu ci ne jamono bu bu fuñ mën a tool rek maanaam ñi ñi ngi mokkal ndax ñi jàng ñaari ñaari ñaari xaaj rek la ñii dañuy wàcc miin ñi ci des dañuy mokkal am ci ñuy bind kaamil sax waaw waaye lim bi moom fi mu toll moom mënuma ko takk waaw waaw ndax bari na teyit lu bare bari lu lu baree bari jàll na ñuy door a tàmbali bint waaw waaye at mucc na rek dana am ñu fi mokkal waaw. Euh, jërëjëf euh, ndax mun nañoo xam ndax euh, daara ji nga xam ne mooy daara Baye Cheikh Sow ci ban fànn ci téere alquran moom la jàngee ndax bi riwaayé tey nii la jàng wala warsh lay jàngale wala xafs. fii nag moom bi riwaayatu warsh la ñuy jàng waaw riwaayatu warsh moom moom lañ doon jàng nag ba léegi moom la ñuy jàng waaw riwaayatu la ñuy jàng an an an an an qaaluun delloo riwaayatu an naafi la bëgg wax waaw fii riwaayatu warsh ci boppam moo fi am moom la ñuy jàng noonu fii waaw waaw. Eh, jërëjëf macha allah daara ji bañ fi yegsee rek daf jox mu mel ni ki dafa bokk ci daara Serigne Saliou yi ndax mu mel ni ki image bu mel noonu la indi kon Baye Cheikh dafa nekk jëmm joo xam ne bokk na ci mag ñi nga xam ne dañuy jàngale mag jàngale mag njëkk ña te fexe ba jàngal xale bi boole ko ak li nga xam ne moom moo di tarbiya ndax tarbiya boobu yeneen ci eh, def yitte bu baax a baax. bu baax a baax sëñ bi dafi ko fonk ab yar moom da ko fonk lool lool lool lool ba tax na dong bi ñëw fii ñaar dañ koy jàngal alxuraan yar ko yaru diine ku fi ñëw rek maanaam loolu la ne njàng mi moom ni mu ni ni mu ñu yitteele noonu la ñu yar bi yitteele waaw. ba léeg-léeg sax da ngay dégg mu ne bu dara naa manqué moom yar bi moom bu manqué waaw moo tax yar bi ñu yitteel la lool lool lool waaw. ah yàlla yàlla defal na ko ci ndamit nag yàlla defal na ko ci ndam ndax mboolem ñi nga xamante ne jaar nañ fii ñi ci ëpp te génn fii ah, ñu sant yàlla bu baax a baax. ci wàll ci ci ci wàll dëgg dëgg ñu ngi waa ñu ngi sant yàlla ci seen wàllu alquran waaye ñu ngi sant yàlla ci seen wàllu yar ndax ñu dem mën a nekk ak ñoom ñoom ñoo ko wax. macha allah ndax mën nañoo xam itam maanaam programme njàng bi ndax alquran kese lañ fiy jàngale wala yeneen téere yi ñu ngi koy jàngale ci wàllu xam-xam. waaw fii kii door a ñëw moom alquran lay njëkkee bu demee ba wattu alquran wala ñu xam ne kii naru ko watt mu miin ko suba dañ day jàng xam-xam diine wàllu fiq dañ fi jàng dañ fi jàng baag xalil wàllu loxa dañ ko fi jàng wàllu siiratu nabawi dañ ko fiy jàng waaw yooyu moom fànn yi nga xam ne moom la ñuy jàng ci kutaa euh, bi waaw ci dañ ko fi jàng waaw waaye nag bala cee kenn laal dara da nga ba mokkal alxuraan ba nappi wala nga dem ba jàng alxuraan ba nappi ñuy door la koo jàngal waaw. Euh, macha allah ndax mën nañoo xam ne euh, maanaam ginnaaw bu ñu jàngalee téere yooyu ba noppi ndax am nañu fi bàyyeekoo di dem di defi maanaam lu mel ni kii shahadatul ibtidaaya wala i'daadiya waaw da na di am bu baax a baax ndax euh, ñi fi doon jàngi am na ci ñoo xamante ne dañuy continuer jàng noonu ci daara am na ñoo xamante ne dañuy continuer dem def seen liggéey waaye ñi fi jóge am na ci ñoo xam ne ñu ngay continuer di jàng ci école yi ah benn ci man mi fi laa jàngee ba ma noppee dama dem jàngi arab ba tey maa ngi yor sama maîtrise charia waaw naka noonu naka noonu ñeneen ak ñeneen ñeneen ñeneen ñu ngi fi waaw waaw ñu ngi fi jàng waaye nag fi mu toll ñu toll nii daara ji li fi amagul mooy jàng alxuraan jàng xam kii jàng eh, na nar jàng école moom bu noppee day génn dem ci école yi pour mu jàngi waaw waaw loolu moo fi amagun waaw. Euh, bëggoon nañoo xam itam maanaam programme bu njàng bi maanaam yan waxtu ngeen di faral di jàng yan waxtu ngeen di wàcc yan waxtu ngeen di noppal. waaw jàng mi moom li ci ëpp doole mooy ah, buñ xëyee maanaam fajar daañu yow gën gaa néew. daañu maanaam waxtu ak genn wàll daañu ko jàng ci fajar ba dóoru set gën gaa néew su ñëwee su huit heures xasee ba jot dañ ci ne ne ci ne ci ne ci ne ci ba une su une heure dañuy ba trois heures et demi ñu tàmbaliwaat ba ay six heures guddi geet lu mu néew néew daañu jàng lu mat maanaam une heure de temps dix dix minutes waaw guddi néew néew daañu jàng maanaam waxtu ak fukki minutes waaw loolu daal mooy suñu waxtu yoo xam ne moom la jàng waaw jërëjëf euh, macha allah xam nga ne ku tudd daara tudd ay jafe-jafe yi nga xam ne moom moo ànd ak daara ñu bëggoon a xam daara ji lan mooy ay jafe-jafe. ah daara ji moom mooy jafe-jafe daara yi rek <laughs> ci gàttal mooy noonu ndax am foo bëgg ñu egg fa ak bëgg maanaam ay jumtukaay yoo xamante ne daañu ko mën a am ngir li ñuy def mu gën leen a yomb maanaam te mënaguñ caa jot loolu moom am na fi. ndax ni ñuy gisee daara ji bu ñu sañoon daara ji dana gën a defaru nii waaw daañu ko gën a tabax ba mu gën a waaw mënoo ba mu gën a mucc ayib. naka noonu donga yi nga xam ne ñu ngi ci biir daara yet ndax daara ji di daara joo xamante ne daara cosaan ni ko daara joxoon dañ naan ku fi indi sa doom da joxe nangam fi waaw amagu fi waaw ba tax na wàllu dund ak lépp loo xamante ne ab dong dana ko soxla daal soxla nañ ko fii ci daara ji waaw waaw acteurs yi ñu jàngee yëpp. waaw lépp loo xamante ne kuy jàng dana ko soxla rek soxla nañ ko fii ci daara ji ndax yëpp daanaka sëñ bi sëñ sëñ sëñ bi moo ko yanu waaw naaw yàlla lépp sëñ bi moo ko yanu waaw. waaw te maanaam li fi yittewoo daal bari na lool waaw ndax ordonnance yaa ngi fi xale yi feebar waaw ñuy jànge fu ñu ñuy tëdd moom daal lépp lu ñu soxla ci daara rek soxla nañ ko fi waaw waaw waaw ci gàttal. Euh, jërëjëf euh, macha allah kon lépp loo xam ne rek lu ñuy soxla ci daara la soxla nañ ko fii ci bi daara ji ndax bu ngeen ko déggee daara la joo xam ne amul lenn loo xam ne dañu wane waajur yi su weer deewee lii lañ warloo ak yow daara la koo xam ne comme ni mag ñu baax ñi daan joxe daara naan yore daara noonu la Baye Cheikh saw yore daara ji xam naa dañ koy ñaanal bu baax a baax rek mu bokk ci inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafisun dañ ko koy ñaanal bu baax a baax a baax yàlla fay ko li nga xam ne moom lay def ci doomu jullit yi te mooy ñu fexe ba mokkal li nga xam ne moom moo di alquran mu mel ni kii euh, sëriñ bi xam naa dañ lay jox rek nga jox kàddu yi nga xam ne moom ngay tàggoo télévision Mafatihul Bichri ak numéro boo xam ne képp koo xam ne bëgg ngaa yëkkati sa alal ngir def ko ci yoon yàlla euh, nga mun a jaar ci numéro yooyu wala nga bëgg jël sa doom indi ko ci biir daara ji nga mun a jaar ci numéro yooyu sant rek yéen mbokk yi ngeen ne yéen yéen san borom defal leen def na yàlla def tawféex na yàlla defal leen tawféex waaw daara ji moom li ma waxoon sànq rek lépp loo xamante ne daara na ko soxla soxlaan soxla nañ ko ndax li fi lim bi lu mu néew néew du a néew ñaar téeméer waxtu wi ñu toll lu mat ñaar téeméer ak fukk ak juróom nekk na fi te day dem jamono joo xam ne da koy ëpp da koy ëpp te eh, daanaka sëñ bi fa mu bëgg daara ji àgg maanaam àggu ko fa te day bëgg mu nekk daara joo xam ne daara ji continuer ba faw la ko ilaa yow ma xaal la ci bëgg ndax yi nga gis maanaam béréb yi nga gis yëpp sëñ bi moo ko jël def ko ci daara ji ngir nan daf ko def wàqaf la ko def ngir nga xam ne lu mu fi mën a def it moomu ko keneen moomu ko alxuraan ak moom waaw nga xam ne béréb bi du béréb bu ñuy askanale kenn sëriñ bee ne moo ko moo ko def waaye nag da koo def maanaam ngir yàlla waaw ba tax na képp koo xamante ne ah maanaam man ngaa jàppale daara ji rek ñi ngi ñi ñi ñi ñi ñi ngi lay tàllal loxo bu fekkente ne terme bi kiwul ñoo ñoo ñoo ngi ñoo ngi lay ñoo ñoo ngi lay waaw ñoo ngi lay taalal loxo waaw képp koo xamante ne maanaam eh, dimbali daara rek maanaam ngi lay yëgal ne daara ji soxla na ndimbal waaw soxla na ndimbal bu baax xam naa daara ji nag ay numéro am bokk na ci numéro 76 683 83 42 waaw 76 683 83 42 wala 77 459 44 38 waaw. daanaka fu gox bane nag am na ñu nu fa nekkal waaye eh, ku ñu jotit suba yàlla te maanaam muy am loo bëgg a leerlu fii bu soobee yàlla daañu la boole gën a jege foofu ndax fu ne am na ñu ñu fa nekkal waaw waaw ci gàttal daal maanaam loolu laay tàggoo waaw. jërë ngeen jëf mbokk yi comme niñ leen ko waxee rek ñu ngi fii ci Louga ci daara ju am solo ji nga xam ne moom moo di daara Baye Cheikh Sow dégg ngeen ni mu ko waxee ne daara ji waqf la ko Baye Cheikh Sow def macha allah daf ñuy fàttali rek suñu baay ju baax ji nga xam ne ma nga ca tey kokki mu di suñu papa Ahmed Sakhir Lo macha allah gis ngeen jëmm yu tedd yooyu ba léegi ñu ngi ci kaw suuf di dund di liggéeyal borom bi subhaanahu wa taala ndax kii jëm la joo xam ne tey mën naa wax ne dañ ko fekk fi mu nekk rek ngir wone ko waaye jëmm la joo xam dafay liggéeyal yàlla ba pare di làqatu sant bu baax a baax euh, sëñ Maxaali mi nga xam ne tey moo fexe bañ jote ci daara ji yàlla na yàlla fay ko yàlla na yàlla teral ko ndax tey teral na alquran ndax alquran ku koy wane rek ngir jullit ñi euh, jëriñoo ko ngir jullit ñi barkeelu ci dangaa teral alquran kon mu mel ni ki mm, dañuy dem ci Baye Cheikh saw rek bu fekkee ne mun nañoo am ci ay kàddoom yu néew rek mu wax ñu euh, ki nga xam ne dafa yëkkati alalam ngir def ko ci alquran lan mooy ak fayam Eh, jërë ngeen jëf mbokk yi seetaan mu mel ni ki ñu ngi eh, togg suñu baay ju baax ji yi nga xam ne tey dafa teral alquran macha allah di ñaan yàlla yal na yàlla teral ko yal yàlla guddal ay fanam te bàyyi ko suñu kanam ba ci kanam ci liggéeyam bu rafet bu bu am solo bi nga xam ne mi ngi koy def tey ci doomu jullit yi te mooy ñu fexe ba mokkal li nga xam ne moom moo di alquran eh, mu mel ni ki dañ koy nuyu rek di ko ziyaara bëgg rek mu dikkal ñu tuuti rek ci ki nga xam ne dafa yëkkati alalam def ko ci alquran lan mooy ak fayam Baye Cheikh ñu ngi lay nuyu di la ziyaar asalaamaaleykum wa rahmatulah ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare te di leen baalu xaq te di leen baax yàlla na yàlla boole ñu jégal alxuraan day moom képp koo xam ne kii ki koy jàng ak ki koy ki koy jàngale ak ñi leen ci dimbale yàlla mooy yor seen pay leen fay incha allah. ndax li gën a li gën a xaw li gën a gën a gàtt moo di alxaan sëñ Tuubaa dafa wax ne képp koo xam ne kii dafa mas a woo sax maanaam taaliba yi ne leen yéen de damaa bëggoon waxtaan ak yéen ngeen féetewoo njàng alxuraan rek su ko defee nag yéen man yoroo leen seen lépp ba ñu ñu juboo ci loolu ah yaa dogal ba ñu fanaan ba bët set mu waat leen mu ñëw mu ne ngeen de dafa am lu ma waxtaanee woon ak yéen biig ne woon damaa bëggoon yéen ngeen féetewoo alxuraan rek ba diggante woon mooy ñi nga daari kamil yéen yéen a féetewoo jàng ma yor seen yëpp. waaye nag man ba guddi alxuraan dafa dikk ne ma man kat ku nekk ci man kenn ma la yor maa la yor sama kon alxuraan ci maanaa ndax ba nu tàmbalee njàng yàgg na waaye lii sëriñ bi wax rek moo fi nekk. noonu du na dara ndax sunu jamono dafa xaw a wuteeg jamono bii. jamono bi it ba tey ba li ñu nekk it ba tey baax na waaye nag nit ki lu mu xamut mënu ko su ko duggee ma nga yàq moo tax ñun dañoo féete woo di jàngal alxuraan rek ngir yàlla. te mu fekk mu fekk ni ñu yaroon la ci loolu xamuñu woon leneen ci loolu nag la nekk ba tey waaye dina xam dina xam ne moom fii day ku def sa dara na woon wóor na si loxo yàlla nga ko teg amul sikki sàkka Ah, ndax noo ngi noo ngi noo ngi bëgg a am am am am ayaat ndax ah, bi ma tàmbalim jàng jàng daanaka mën naa ne booba sax wàccuguma alxuraan waaye ba ba fii mu ne yaakaar naa ne trente trente cinq suñu sang boobu ñu wax suñu Mourou Moustapha at moom nee la wee ci la jëkk a tàmbalee jàngal jàngale alxuraan ba fii mu ne. waaye nag mbir mu ne dafa am foo xam ne si bu fa àggee xëy na lay jombul day mel ne da da day yokk bi ma yàlla indee fii nag nga xam ne maanaam yiteetu yiteetu moo ca tool ya xanaa ak jàng mi rek lay lay yittewoo ah, la ko sa di ko doxal bi ma fii tey ah rek mooy mbir mi noonu daal noo ngi fii yàlla nu fi indi suñu bopp ndax bi ma bi ma xëyee sama kër. te yooyu jamono Louga taxumaa jóg te ngir laa ne woon ci lay ci lay ci ndax xam nga tool yi rek lan moon lan amoon ak ak jàngale ah tool yi boo ci nekkee léeg-léeg nga nekk ci tool yi ba génn ci tool yi te tax nga am loo mën a dundalee njaboot ga bu nooree nag nga ne naa dem daal ndax ma am loo mën a dimbalee njaboot ga ba ma jógee suma kër Tëngéej la ma tax a jóg moo ma taxa jóg ma yàlla dogal bi ma dikkee fii ci Louga kër sëñ sëñ Ibra Sall kër sëñ Fallou ma yenn fi fanaan fi ba gu ba ba ñu reer ma ne bu subaa jàmm laay dem ci watalaay Tëngéej yàlla dogal bi nga xam ne bii nag dem nañ ba bay defaru ñu reer am benn xale bu ndaw di waccu rek di waccu rek ah, man a man day kii de bu ma ko fabee ànd ak moom ci yoon wi lu dal dana dana yaraa doon naa far bàyyi ba ëllëg ba mu tànnee rek ma door dem ndeke sama borom booba moom xam na ne moom duma dem. si yooyu jamono nag bi nga xam ne moom yoon fomm na la dikk ci pàkk bii bu ma jàngalee ba bu ma jàngalee ba ba ngoon ma ma doxantu ñëw fii boobu fii dara nekku fi dara nekku fi. waaye bu ma agsee bu xool ko rek mu neex ci suma xool lool ma dellu ba ci ëllëg sa ma jël saat taxaw xool ko mu neex ci sama xol lool ma woo sama mbokk mi tey di sama rak fekk moom moom mi ngi ne ko man de dama am fii barab boo xam bi de dafa mel na ah yaakaar naa ne mel na daal mel na daal baax na nañ dem nga xoolale ma ko. di ko taxaw ci mbedd mi xool ko mu taxaw ni ma ah, fii de mel na ne baax na. loolu gannaaw yàlla moo ma indi fii booba tey nag génnatuma fii la ma doon ñaan yàlla te bi may bi may bi ma daal génn damay ñaan yàlla na ko maa ngi lay ñaan nga yóbbu ma foo xam ne teg ma foo xam ne fii dootuma ànd ak ñi may ànd di di taxabaal ba yàlla dogal loolu ba ma ñëw fii ba tey génnatuma fii ndax yite ji yite ji xanaa li xale yu lekk rek ba ba ba ma ba ma nekk ba ma mën a ñëw ci liggéey mm-hmm. ma di ko ñaan it ko mm-hmm. yow de maa ngi lay may sama su ma maa ngi lay ñaan nga may ma mm-hmm. barab boo xam ne bii su ma fa demee ak ñi ma yor daan leen fay di jàngal alxuraan di leen yar yar bu lislaam ah bu ëllëgee si bu ma fi jowee ah ku ci man rek te man ko yor mu yor ko bu ko fekkente ne loolu amul ñi ma jàngal koo ci bëgg na fa taxaw mooy mooy daara jiite. lépp yëpp defuma ko muy def naa ko ci kayit soxlu ma soxlu am noonu dara l'islam rek laa ko def ci l'islam laa ko def l'islam rek laa fi nekkal bon fax fii ku lu waay def ne woon na wëccoo ko te yàlla tax wëccoo ko incha allah te ah, maanaam maam ki ñu ma ne ki ma xaali mi ñoom tabarkàlla jàmbaar lañu lool ci daara ji ak mboolem ñi mu àndal ñëpp wax dëgg yàlla maa ngi ñaan suñu borom fayal mu leen moom mi am fay ndax bu ñu sañoon bu ñu sañoon ñoom def dara ci daara ji lépp ñoo ko féetewoo di ko ca ñu ngi ci liñ ci mën lépp ñu koy def kon yàlla yàlla fayal mu leen yàlla yàlla guddal seen fan te defal leen wér ah te doole seen barke rek waaw loolu daal la. yan kàddu ngay ngay ngay ngay jox waa télé Mafatihul Bichri tey yi nga xam ne dañoo ziyaare si daara ji te dara yitteelul ñu ñoom tamit lu dul liggéeyab lislaam télé bi lislaam rek moo ko yitteel lépp loo xam ne njàngaleem Serigne Touba la wala ca la daan dox rek ca lañ nekk. moom bu yóbboo seen xel da ndax boobu turu doy doy na waaw doy na doy na sëkk te it ñu taxaw ak li ñu bëgg. ah ku ca ku ca nekk yàlla sax nga nekk ca sa borom dana dana mu mbiri mbiri àddina ak mbiri àllaaxira mu seen bu baax a baax a baax yàlla ku ko liggéeyal mu añ maañal la ku am la ku ko liggéeyal rek booy ba rafet njot ah booy def lu baax sooy boo di yàgg séenu lu baax rafet njot ak sopp njot ak ñaaw njot su booy def lu baax nag di séenu lu leen lu baax yaa ngi ak ñoom njott ñoom njott baaxul booy def lu safaan baax te séenu lu baax it na sopp sa njott waaye di nga sopp doo ko gis waaye nag booy def lu baax booy boo doog ne da am lu baax te yàlla tax amul sikki sàkka waaw te lu baax rek la ñu bëgg fii ak fa fa ñu jëm hmm. te alxuraan lépp a ngi ci biiram ki ko jàng ki koy jàngale ak ñi ci ñi dimbali ñuy jàng ñëpp ñu ngi ci biir. te mën na boppam kon loolu rek la loolu mm, ñoom maa ngi sant leen gërëm ah ndax maam ku góor gu baax goo xam ne ji nitu yàlla la woon daana wax ne gu nekk ñetti surga rek ñoo fi nekk ne bii surga yàlla dana ko faya bii surga yàlla dana koo gëne bii surga yàlla dana koo nattoo waaye ñoom ñii de xalaat naa ci sama sama man de ñoom la ñii de yàlla dama ko gën yàlla yàlla moom moom moom moo ko gën ci ñoom ndax yaakaaruma ko woon man yàlla rek ma laa doon liggéey la waaye nii ñu taxawe tey yaakaaruma ko woon kon dama leen sant di leen gërëm di ñaan yàlla rek ah yéen ñii wax dëgg yàlla fa tabaarakallaa yal na yàlla wéral cër yi ah mottali leen yéen yi yëpp li ngeen yéen ci baax yàlla na ko def ndax lépp. ci ci ji rek la ci alxuraan la te yàlla ku ko dimbalul yàlla mooy nga nga la mu santaane nga def ko soxla sox ko dimbali waaye boo ko defee yaa ngi dimbali sa bopp yow kon yàlla yàlla loolu seen dimbal jërëjëf. jërë ngeen jëf mbokk yi macha allah dégg ngeen ni ko suñu baay Cheikh sa waxee macha allah. xayrukum man taallama alquran wa allamahu ki gën ci yéen mooy ki jàng alquran ba pare di ko jàngale dégg ngeen ko itam ni mu ko waxee ci njàngalem sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam iqra'u alquran fa innahu yati shafi'an li ashaabihi li ashaabihi nag weesuwul ki nga xam ne dafay jàng alquran di ko jàngale weesuwul ki nga xam ne dafay yëkkati alalam def ko ci daara ji weesuwul ki nga xam ne dafay bale daara ji weesuwul ndey daara ji nga xam ne dafay fóotal waa daara weesuwul ki ci hôpital bi sax gis taalu bi mu feebar nga faj ko alquran ndax mooy ñuy dimbale fii ci àdduna waaye tam moo ñuy dimbale jàllale la ñu fa li nga xam ne moom moo di àlaxira kon ñu ngi sant bu baax a baax di ñaana suñu bàyyi ju tedd ji nga xam ne tey moom mooy alquran macha allah comme ni ko Serigne Touba jàngalee mu mel ni kii dañuy dem rek kon ci biir daara ji euh, seeti xale yi comme niñ ko daan defee rek euh, ñu tari ñu alquran ñu barkeeloo ko ñun ak yéen ñi seetaan télévision Mafatihul Bichri. ñëw fi ngir yaru rek jar na indi fi sa doom ndax li fi jote génne day li alaaji saw mi nga xam ne mooy njiital daara ji wax moo ci nekk ab xay mu ne su ko xayma bari nañu waaye kenn ku ci nekk day foo dajeeg moom ci adduna bi danga xam ni ki yar nañu ko dongo yi ci biir dëkk bii nga xam ni ay daara yu baree baree ngi fi dongo boo ci xam ne bii dem na ci dëkk bi di wërilu sax bu ñu ko bëggee fitnaal bu ñu ko ne foo dëkk danaan daaray bàyyi Cheikh saw ngir bëgg ngir bëgg xam ni xam ni ku juble rek dañ koy làqatoo daaray bàyyi Cheikh saw bari na dongo yooyu dañ koy làqatoo ci dëkk bi ngir bëgg xam ne bu ñu foo boo nee daaray bàyyi Cheikh Sow laa jógee ñu naa kooku kon dongo bu jubla kon nag dara loolu dara la te am na fii ci dëkk bi a ah, gannaaw bu loolu wii itam sëñ Cheikh moom lim wax léegi rek lépp mënee su ko waxal sa bopp. waaye moom daal nekkiwu fi lu dul yàlla liggéeyal yàlla liggéeyal Serigne Touba liggéey benn la ndax liggéeyal yàlla ak liggéeyal Serigne Touba benn la euh, ki nga xam ni kii itam gannaaw yàlla moo ko fi doolee samp muy mu nga xam ne ci ci ci ndigalam ak samp aayam ak waxam moo ko fi kàttanal moo ko fi doolee kàttan muy sëñ Saliou ndax sëñ Saliou ba yëngu-yëngu daar yi ameet ba mu demee wax ko defani ko ah moom de lanu newoon lanu woon nan ci ne rek baat boobee ku sëñ wu joxoon nag ne ko lanu woon nan ci ne loolee moom ca la mooy ndigal loola ca la ne ba tey kenn du fi indi sa doom ba mu ni la jox ma dërëm kenn du fi indi sa doom am na ñooñ saamaas gi yëpp ba ñu fi indi seen doom daanaka la ñu mujj xam lu ne ci moom sëñ bi mooy jongal bu woppee mooy faji lu ko mën a dalit amul kenn koo xam ne kii indi nga fi sa doom day sa doom dara dal ko ba sëñ bi ni nañu wooyi baayam wala nañu wooyi kennam mu ñëw faj ko wala nangam mën nga moo ci nekk day xanaa yaa koy yëg rek ñëw la nga mën nga def ko ci mbaa doo ko yëg sax su dee lu am solo sax doo ko yëg kon nag ah li fi nekk mooy képp koo xam ne kii da ngaa bëgg a yàlla day la ngay liggéey xol yàlla sedd ci guy yi xol bu yonent bi sedd ci guy yi booy boo nga indi ko fii liggéey ko fi ndax loo fi teg de na la wóor ci loxol yàlla nga ko teg mm-hmm. amu amu fi lu ñuy foyee amu fi lu ñuy defee dara lu dul lu ñëw ñu def ci alxuraan ak dongo yi rek kon nag ku bëgg ngërëmal yàlla daal mën ngoo ko am fii ku bëgg ngërëmal yàlla mën ngoo am fii te moom kat sëñ Saliou mi ko fi tegoo nit nee na ko woon nangul nañu la sa lépp mm-hmm. waaw sëñ Saliou nee na ko woon jàkk ni ko Cheikh nangul nañu la sa lépp ci sa nopp bii la ko dugal mokk ko kon nag loolu rek doy na Eh, noo ngi sant bokk yëpp tey ñaan sa borom bu yàlla guddal seen fante fan te may leen di wér ah te xam ne lu fi waay def daal lu fi waay teg daal ci loxol yàlla nga ko teg asalaamaaleykum wa rahmatullah Eh, jërë ngeen jëf mbokk yi macha allah gis ngeen kàddu yu am solo yooyu nga xam ne teew teewlu ngeen ko su suñu papa sëñ ma sàmba eh, macha allah kon dañuy dem ba tey itam ci suñu papa eh, sëñ Ndiaga Guèye macha allah moom it am lu mu sànni ay kàddu rek jëmale ko ci daara ji ndax ay mag lañ yoo xam ne dañoo teewee lépp daara ji macha allah kon mënuñoo def émission ba pare te sànni wuñ ci ay kàddu ndax ñoom it lislaam rek moo leen yoon alquran rek moom moo leen jitteel ba tax tey ñu ànd ak suñu papa Cheikh Sow macha allah boobu léegi léegi 84 ak léegi macha allah booba yàgg na macha allah kon ñun ñi di wax ak yéen sax fekkutoon ñu juddu kon loola lu yàgg la macha allah kon papa ñu ngi lay ziyaara sëñ Ndiaga. bisimilah rahmaani rahim mbooloo fi daje maa ngi di nuyu di sant seen tànk yi ngeen di dox yal na la yal leen ci yàlla fayal tuyaaba ju ëpp seen jot def ngeen lu baax ndax pàkk bii ak sëriñ bii nga xam moo ko taamu ba ñëw fi dundal na euh, lislaam dundal alxuraan bu baax dundal itam quartier bi ko quartier bi mu ne man nag yàlla dafa dogal muy sama mag boo xam ne noo bokk lépp dogal na bi mu ñëwee fii moo taamul boppam béréb bi ndax sëñ Ibra Sall da ko bëgg a yemale woon fee ci kër sëñ Fallu mu ne fa waaye moo xam ne moom boroomi gone nekk ci biiri kër nekk ci nekk ci ab àll bu mu leen mën a yare moo tax mu taamu ba ñëw fi xoolal ko boppam mu ko xooleel boppam ba woo ma won ma ko it ma ne ko lii moom mucc ne baax na yàlla def nag dafa fi ma fekk ndax man bérébu jullukaayu sëñ Touba bii nga xam ne bii sëñ Touba fi ay yoon waaye yoon yu fi mujjee gànnaar la jóge daal fi am fi fukki fan juróom ki fi nekkoon di ab taawam ma Samba Soxna dénk ma béréb bi ma ne fi boobu fi àll la. bi ma fi nekkee ba yàlla dogal mu ñëw fi di fi ay ñi fi def ay ay néeg di fàkk dëkk ndax bëgg kër mu di fi àbb fu mu war a nekk gone yi de li mu wax ni fii taxu ko woon a jóg loolu dëgg la Modou Binta moom mi woppoon ba tax mu fa mu yoonam ba taamu fii yàlla dogal nee na fi biir bi ba jàng fi ba mokkal ba bind fi kaamil ak yàgg yeneen moromam mu ni su koo lim bi mu ñëwee toppatoo ab baraak sengum ñaari néeg ci ci gàdd gi wecc ko ko fa ñu war ko war yenu indi fii biñ ñëwee fekk na sax nattkat yi di natt ca wàll ca penku waaye fii nattaguñ ko ñu daal di fay ay ay lappatoo yu ne fii ci kër Fooy ca biir dëkk ba ñeenu ko seng ba sampal ko fii guddi ngoonu timisuk timisuk uh, uh, dibéer digganteem ak gila la ñu fii baraag ba bi ñu ko fi indee samp ko mu ci peri barax yi mu jëndoon denc ko fee ci kër Demba Wàdd gone yi indi ko ñu muur ko ñu muur benn benn néebi benn néebi ci des kepp euh, euh, féete penku keppaar keppaaru ngoon gi bu génnee mës taa toog guddi keroog di guddi altine guddi keroog la ñu indi sëñ Muntaga ci jële ko Ndakaaru indi ko Louga muy daal ay ndox ñu samp ñu samp seng bi ba ñu ko sampee ba noppi ñu muur peel yi keroog day yàlla baaxe na ma fekk mokk naa isinu rablaar wax naa ba sama ténk sama sama sama wetu conco ma jàng ko def ko fi waaw loolee man daara rek laa bëgg nax damaa yaroo ci daara te njëj fo lépp fépp foo xam ne fii ndimbal nga fa wala njëriñ nga fa wala lu baax nga fa wala lu ma yónni la mhm. ma daw nekk ca loola di ko ci jàppale wane yi ay tuut tànk lañu ah man nag mhm. gannaaw yàlla cosaanu ma fi maa nga dëkk fee ci àll ba seen dëkk waaye ah béréb bi sëñ Tuubaa nekkoon ku fi nekk nekk ci alxuraan ah ma jox la bopp bu baax te it muy wàllu mu muy kilifa ci man goo xam ne gii war naa ko ñaqal war naa koo sonnal ba lu ma ci xam ci lu baax mbaa ma man koo laddanti ma ne ca loola. loola daal mooy sama wàll ci daara ji ah dem naa nag ba sama xel yi ma bëgg a wax lépp mënu may wax mënu ma ko wax ndax sama xel taxul mu neex samay bët itam léegi neexatul waaye. sëñ Cheikh dafa dëggu dëggu goo xam ne kii fii daal kër gu yàlla ndax yàlla gisuñu ko waaye ku gis alxuraan xam nga ne alxuraan mooy yàlla waaw te itam dëggu na dëggu goo xam ne kii lu fi jëf danga ko gis ëllëg ndax ak dëggoom taalibe yi fi ne amul benn taalibe boo xam ne bii murit la mbaa muy tijaan mbaa muy xaadir loo mën a doon ca la nga nekkoon la lay bàyyi maandu na ca doo ci jóge mukk boo demee loola ca ngay làgg ci say waajur ba léegi foo bëgg a jëm yaa fa jëm waaye moom du la jëlee ca nga nekkoon loolu xam naa ko te ku fi jóge yar boo fi am njàng boo fi am boo tuul njàng dana baax dana am lool ci nit te yar ba des waaye fii di ku fi jóge yaakaaruma da nga dem fenn ba ñu xeeb la fa mbaa mbaa mbaa nga def ci mbaa nga def lu ñu naan do yaakaaruma ni dana jóge ci daara ji moom waaw loolu moom lu ama am la moom te maandu na ci lépp loo xam ne lii waajur yëkkati na ko joxe ko fi te nekk ci weneen yoon wala leneen loola moom boo bëggoon a jàdd loola dale waa lañ la yare la sa waajur nekk kat boo ñëwee fi bëgg a sujjóot dale wax bu bu bu nekkal ca la nga newoon ba ma ngay dellu sa loxoy waajur dara du ci soppiku ah ba tax na ni mu dëggoo daal nun xam naa ni bu nu ko gisee ah yaakaar naa ni foo ko tukk foo ko tupp rek boo xoolee ci moom ah, da nga naw da nga naw la mu nekk rek moom daal yàlla nu ko fi indil mënees na ci liggéeyal yàlla liggéeyal ci te ba liggéeyal sëñ Tuubaa yàlla buñ ci gimiñ jàpp ku dëggoo dëggu kon nag lépp lu lu lépp lu waay di denc ngir yow man xëyaam bu boobaa sa ñaq woowee nga denc fa nga dugal fa nga dugal nga wóolu ko fii la ku fi dugal saw ñaq day ne la wér ni te nga ko ci roxal yàlla teg ko ci loxol yonent bi teg ko ci loxol sëñ Tuubaa ndax gone yii de ku ci dem ci dëkk ba yor battu yalwaan bu la fa diisee fekkee sax bu ñëwee lay wax loo fa doon def amu ci kenn koo xam ne kii dañu ko dongo dafa baaxoo yalwaan waaye kon du duñu yalwaani ndax moom jaral na ko lu ne ah ba tax na lu lu lu ci waay mën a wax de bàyyi nga ca eh, lu këpp ci pas-pasam ak ak ak ak ci alxuraan ak xéeram ci sëñ Tuubaa dara dara dara nit ku dëggu koo xam kii daal lu mel noonu moom moom ku nekk ci ay jotaayam eh, eh, eh, danga xam ni lii gisoo ko fenn fu dul fii waaw man nag damaa mu ne wule wax waaye nag maa ngi leen di sant di leen gërëm ndax lii ngeen def day tuyaaba ju rëy rëy la ndax moom bu doon moom dong dana fi ne ba abadan waaye kenn du ko dégg ci lenn te du feeñ ci lenn ndax feeñalul boppam ci lenn léppam daal da koo teg ci loxol yàlla ak yonent ba ak ak mi nga xam bi moom dong la la la la yaakaar moom dong la nu yaakaar it waaw kon nag ah, alhamdulilah. wallaahi la si ah, ah, dëgg nga ko foo xam ne fii. doo ko rëcc bu ëllëgee yow moo ko fa joggi alxuraan kese la waaw dama leen kër gi ku fi ñëw aw dàll bay ba wàcc ko ca bitti bañ koo sol fi ndax yaa ngi koy dugg ci kaw alxuraan waaw fii fii laa wax fii laa wax Eh, jërëjëf euh, Baye Ndiaga Guèye macha allah am na solo kon lu amul sede baaxul macha allah gis ngeen mag ñi nga xam ne ñoom la àndaloon di liggéey lislaam ba tey gis ngeen seede yu am solo yi nga xam ne mu di ak euh, imaan gu wér te wóor moo nekk ci moom euh, ba tax ñu mën a ànd ak moom boobu ba léegi xam naa dañ leen fi ñaanal bu baax a baax rek ñu yàgg fi lool te wér ànd ak ba tey daara ji rek macha allahu di jàngale alquran kon mbokk yi dañuy ànd ak yéen rek dugg ci biir daara ji barkeelu ci alquran. Euh, jërë ngeen jëf mbokk yi macha allah ñu ngi toog ak ki nga xam ne dafa bokk ci jëwriñ yi jàngale ci biir daara ji mu di sëriñ Ibrahima Mbengue moom ci biir daara ji la nekk di jàngale alxuraan xam naa dañ koy laaj rek moom ginnaaw buñ ko nuyoo ziar ko jafe yi nga xam ne moom lay dudd ci biir jàngale mi nga xam ne mu ngi koy jàngale bi ci biir daara ji. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala asrafil mursalin sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen fay nuyoo di leen ziyaare di leen tattagal di leen yaatal bu baax di leen wax ne <coughs> yal na yàlla fay leen seen jéego yi fe ngeen jóge ba fii di leen wax ne ñëw ngeen ci daara alquraanul karim joo xam ne ki ko sos dara taxul woon mu sos ko lu dul borom bi subhaanahu wa taala ndax ba mu ko commencé yàgg na di ay at yu bari di ku ñuy wax sëriñ Seex Saw te ñëpp xam ko ci alquran kenn xamu ko leneen lu dul ci alquran daara ji mu def ko daara yi joo xam ne ku fi ñëw da ngay jàng te yàlla tax laajul kenn dërëm te lépp loo xam ne dal na ab donga muy wàllu feebar moom moo ciy def xaalisam faj ko ba mu wér te waaye juram du ko yëg lépp loo xam ne moo fiy tàkk ci moo koy fay lépp loo xam ne moom lañ fiy sotti ci ndox moo fiy fay te kenn laaju laajul kenn dërëm yi lépp mu ngi ko teg ci loxo loxol yàlla moo taxit yàlla fekk na ko ca kon loolu yaakaar naa ne ngëneel lu bari la te damay wax ne alquranul karim moom ka yàlla jégaleel ngëneelam ngëneelam ya kookaa kookaa di buur ndax dara dootul fees bëtam dara dootu fees bëtam te loolu loolu rek moo di nguur kon nguur goo xam ne guddul folliku la ba abadan yal na yàlla taxawu ko ak njabootam dëgëral ay cëram bàyyi ci suñ kanam ba uh, abadan incha allah njàng mi nag uh, ma maanaam uh, ci wàllu njàng mi moom naka daara yi daan jàng rek. naka naka naka mu ko sose woon rek noonu lañ koy jàng ba tey ci waxtu yi waaw ah, na ko alaaji sa waxee bi nga xamee ne nag liggéey bi dem na ba ba nga xam ne ah, xaw naa ah, bari doore te sëñ bi xaw naa néew kàttan ci la ñu fi génnoon ñoom maxaali ñi bëgg dimbali daara ji loolu mooy sama sabab ma ñëw fi ngir topp ci gannaaw alaaji mu wan ma njàng mi ma jàppale ko ci te jàppale ko ci comme li xam ne noonu lañ ko bëggee ngir fañ bëgg daara ji egg ah séentu nañ ko ca kanami kanam nga xam ne daañ fa mën a def lu baree bari ci bépp xeetu xam-xam ñu ko fi jàngale loolu la ñuy ñaan yàlla te yàlla nañu ko yàlla may incha allah Euh, jërëjëf euh, macha allah ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom tamit moo nekk ci biir daara ji yor xale di leen jàng alxuraan mook suñu El Hadj Sow bi nga xam ne moom la ñu àndaloon ci wàllu taarixu daara ji xam naa mu mel ni kii dégg ngeen lim leen wax rek ko alxuraan fal moom doo folleeku kon mbokk yi ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax yéen yi nga xam ne yéen a seetaan télévision ma faatuwul Bichri ñu ànd ak yéen ba tey rek ci émission bu am solo bi nga xam ne ñu ngi ko tuddee kàddu daara Eh, jërë ngeen jëf mbokk yi ba tey ñu ngi ci émission kaddu daara yi ak télévision Mafatihul Bichri eh, ci émission bu am solo bi nga xam ne saa su nekk yéen a ngi ciy ànd ak ñun mu di télévision Mafatihul Bichri ak soxna Jamilatu eh, mu mel ni ki ñu ngi ba tey ci daara ji nga xam ne moom mooy daara Serigne Cheikh Sow nekk fii ci Louga gis ngeen barab bi mooy mbaar mi nga xam ne fa ndongo yi di jàngee li nga xam ne moom moo di alquran macha allah dégg ngeen xale yi macha allah njàngale mu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy jàng fii ci daara jamale ko ci wàllu alquran ak xam-xam xam naa ndongo ngi ni toog rek koy jox mu jàngal ñu alquran mu di sëñ Galaay ñu daal di ciy barkeelu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة وزنوا وزنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذا غس ربك من بني آدم من سعورهم ذرياتهم ذرياتهم وأشهدهم على أن أنفسهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا إنا كنا عن هذا غافلين sadaqallaahul aziim macha allah dégg ngeen ndongo boobu tari alquran waaye ñu ngi fi ak yeneen yi ndongo macha allah sëñ bi nanga def. mu tudd. Bachir. Hmm? Bachir. Bachir foo dëkk. Ngeer. kañ nga ñëw ci daara ji. Hmm. kañ nga fi ñëw. yàgg na. yàgg ah. turandoo borom daara ji la sëñ Cheikh ñu ngi lay ziyaara fan nga toll yow. xuluy. xuluy. mën nga ñoo taral Issa Dia Nasrullah taral ñu ko waxal ci kaw أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kaana tawwaaba sadaqallaahul aziim jërëjëf Baye Cheikh macha allah ñu ngi ba tey ak beneen dongo boo xam ne mu ngi nii suñu wet nuu tudd. Baye foo dëkk. Touba. kan mooy sa yaay. Busa. kan mooy sa papa. Abdoulaye Blambe.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 عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى sadaqallaahul aziim jërë ngeen jëf mbokk yi macha allah ñu ngi ba tey ci daara yi Baye Cheikh fii ci Louga eh, gis ngeen macha allah alquran ji mu fi safee sàpp ju ngi ci barab boo xam ne tey dañoo am mbégte bu baax a baax ndax tey ñu ngi ci biir ndongo yi macha allah ñu ngi jàngal alquran eh, xale bi nga xam ne itam moo doon jàng Issa Dia Nasrullah mu mel ni kii eh, gis ngeen saar wu am solo wax mu mag bi nga xam ne solo na ci biir alquran lool ci la toll dama ko mës a def dem ci benn émission tari la xale bi xul en onze biram naa ordonnance bi ma noppee xale bi jooy jooy yu métti ñu laaj ko lañ ngay jooy mu ne moom dañ ko sari tariloo saaru tuuti te <laughs> moom mu toll fu sori kon mu mel ni ki xale yi dañuy egg macha allah fu am solo foo xam ne léeg-léeg dafay dafay laaj sax ñu tariloo leen xul walaaw axara ngir ñun ñu barkeeloo doy doy nañu sëkk moo tax macha allah ñu ngi ak beneen dongo noo tudd. Hmm? mën ngaa wax ci kaw. noo sant. Diop. borom caméra bi déggu la noo sant. Diop Diop. foo dëkk. ngiij hmm? ngiij ngiij nga dëkk fa nga jógee jàng si fii alxuraan hmm? ah. taril ma lii ci biir aliwoo bi ma xool lan la waxal ah. ma lii ci aliwoo bi innahu alim hmm? bi saati sudur acca waxal innahu alimun bi saati sudur alim bi saati sudur waaw saama sana insaanu durru du daan naa Mhm. daa rabbahu mu ngi mu ngi ban ilayhi ilayhi misaaqluhu bëgg nga mokkal dem ñibbi hmm? neemati bëgg nga mokkal ñibbi hmm? waaw ñu ngay ñaanal bu baax a baax nga mokkal ba dem ñibbi ngi dégg boo demee nga nuyu ma sama maam yi nekk foofu dégg hmm. seex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 آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دونه وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعد بعثنا عليكم عبادا لنا لنا أولي بأس شديد فجاسوا فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن سأتم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 yaa man jacalta alqur'aana fawqa alkutubi waxmi ahlahu an aadaai alkitaabi kuy bëgga tabax day jiital fondement lu ko moy mu daanu ngir ñàkk fondement alqur'aan mooy fondement bépp xam-xam doomi soxna jàngil ngir ragal ku la jam alqur'aan mooy téere bi dul xewwi ku ci nekk te yàlla tax dooma sa xewwi jullit bule war na koy jàngal doomam ngir moom ëllëg bu ràññee xam boroomam alxuraan xel mu mu jiitu day daldi leer xeetu xam-xam bu ñëw gannaawam day daldi wér yaramal ma ki bëgg suufeel alxuraan jaahilul murakkab moo koy wecceeg taaxuraan alxuraan ni ko yàlla sàmme lay sàmme ay ñoñam ñi bàyyi lépp ne ci na seen xel dal fun mën a jëm te yàlla jagleel ngëneem ya koo ngëneelam ya koo kaadi buur ndax dara dootul fees bëtam loolaa di nguur daara yi alquraan yi sens lanu ci réew mi ku leen bëgg a fay bëgg nga musiba ci réew mi jàng ak jàngaleek yar moo di turu daara lu wóoteeg moom loola kenn nekkul daara allaha nasalu barakatal quraan bi jaahi man kitaabuhul furqaan salli sallim ala xayril anaam bi alihi wa sahabil kiraami zawil mi am allahumma salli ala jërë ngeen jëf mbokk yi macha allah ci émission bu am solo bi nga xam ne yéen a ànd ak ci télévision ma faatihul Bichri mu di émission kàddu daara yi macha allah gis ngeen daara ju am solo ji nga xam ne tey fi lañ ñëw mu di fii ci euh, Louga di daaray Baye Cheikh saw macha allah gis ngeen fekk nañ fi jëwriñu daara yi nga xam ne ñoo nekk ci biir daara ji jàngale ki ci jiitu mu di Baye Cheikh Sow sëriñ El Hadj Sow waaye Ibrahima Mbeng gis nga itam suñu baay Masamba itam wax na kàddu yu am solo euh, suñu baay Cheikh gi itam macha allah indi na suñu baay Njaga Gey indi na kàddu yu am solo seddee ko li nga xam ne moom moo di daara ji bi ñu duggee ci biir ndongo itam fi lañ fi fekk moom moo di alxuraan boo xam ne dafa ànd ak euh, yàlla kese macha allahu te gis ngeen biir daara ji gisu leen fi benn yoon boo xam ne fësal nañ fi jëmale ko ci wàllu tarixa macha allahu gis ngeen li nga xam ne sax moom lañ ànd ak mu di baatu la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam gis ngeen tuut tànk yi nag ma dendal ñooy tuut tànk yi nga xam ne ñoo gën a tuuti ci daara ji waaye itam jàmbaar lañ ci wàllu jàngale mi nga xam ne moom moo di jàngul alxuraan xam naa mu mel ni ki mbokk yi dañ leen di sant rek di leen jaajëfal yéen ñi nga xam ne saa su nekk yéen a ngi ànd ak ñun ci télévision ma faatuwul Bichri waaye di sant bu baax di gërëm sëñ ma xaali macha allah moom mi nga xam ne tey moo tax ñu xam ruq bi moo tax ñu xam barab bu tedd bi nga xam ne képp kuy wuyoo ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullahi sallallahu alayhi wa war nga see teg sa bët ngir barkeelu ndax boo fi taxawee rek da nga yëg la nga xam ne moom nga yëg ci xelkom boo la nga xam ne moom nga yëg ci daaray kokki boo fi taxawee yëg la nga xam ne moom nga yëg ca poroxaan mboolem barab yoo xam ne rek alquran ma nga fa boo taxawee ci ëtt bi da nga ko yëg ndax yàlla kese moo fi nekk alquran kese moo fi nekk ak mag ñu baax ñi macha allah comme niñ ko daan defaree mu di teral téere yàlla bi nga xam ne moom moo di alquran karim kon mbokk sant nañ bu baax a baax télévision ma faatuwul Bichri watina sëñ vision islamique au service de Khadim Rasoul te weesuwul lii nga xam ne moom moo di alquran rawatina émission bi nga xam ne moom moo di kaddu daara yi jaajëfal nañ leen ak yéen ñi nga xam ne saa su nekk yéen a ngi dugal seen loxo yi ci daara ji waaye nag ñu leen di woo nañ leen daan woowee rek ci mboolem daara yi nga xam ne romb nañ fa mu di ngeen jël seen loxo jël seen alal jël seen lépp dugal ko ci li nga xam ne moom moo di ëtt bo am solo bi nga xam ne ëpp ëttub alquran la moo di daara ji nga xam ne moo di daaray Baay Cheikh Sow ndax ku xool daara ji kat xam nga lañ war soxla kon lépp lu ñu nit di soxla rek daara soxla na ko daara soxla na matelas soxla na basan soxla na ceeb soxla na suukar soxla na saabu soxla itam xaalis ndax dafay fay courant di fay ndox di joxe dund macha allah xale yi bu ñu feebaree dañ leen a war a faj dañoo soxla ay téere soxla ay dàll macha allah ndax gis ngeen donc yi ku leen dëgg mu ngi fi ndax lii mooy daara lii mooy daara lii la fi Serigne Saliou bàyyi lii la fi Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul bàyyi Seydi Hadji Malick lii la fi bàyyi Maam Baye Niass lii la fi bàyyi keneen ak keneen tam lii lañ fi bàyyi moom mooy cosaanu daara te lii mooy cosaanu daara mu di daara ju am solo ji nga xam ne moo di daara Baye Cheikh Sow kon mbokk yi ñi sant bu baax a baax mboolem koo xam ne rek yaa ngi jàpp ci biir émission 4 daara yi te jàpp gi mooy nga yëkkati sa alal doo ko jox soxna Jabalatu joo ko jox ma faatihul bisir waaye yóbbu ko ci biir daara ja ngir daara ja mën caa eh, sukkandiku ngir dimbalikoo ci wàllu dund bi ndax ñoo fi nekkal mboolem mboolem koo xam ne rek yan ci kaw àdduna nekk ci jàmm xale yii tuut tànk yii ñoo tax nga nekk ci jàmm ndax ñoo xëy di jàng alquran te ahlul quran muy ahlullahi ñoom ñooy wa alquran ñoom ñooy borom bi subhaanahu wa taala kon mbokk yi sant nañ leen bu baax a baax di sant borom bi subhaanahu wa taala waaye itam di leen sant yéen ñi seetaan télévision ma faatuwul bisri ki ñu àndaloon ci wàllu caméra bi ñu ngi koy sant bu baax di ko jaajëfal taalibi Sëriñ Tuuba bu mag bi macha allah di liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul yal na yàlla fay ko yal na yàlla teral ko kon mbokk yi teral nañ leen sant nañ leen jaajëfal leen télévision ma faatuwul bisri émission Kaddu Daara yi ak soxna Jamilatu Jaxate wa axiru daawaana alhamdulillahi